yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Amadou Ba mi Macky tànnal waa Bennoo tegal leen bari ay journal yu ko xëy teg ñoom it ci seen xëtu njëkk bokk ci ñoom Soleil national mi bind ne ginnaaw ñaari weer yi waxtaan ki diisoo Amadou Ba le président Macky Sall désigné keroog samedi ne candidat majorité présidentielle bi ci wote yi njiit réew yi ñu jëm lu jëm ci tànn gi ñu ko tànn jiital ko moom Amadou Ba yéen kaay bi di Soleil national xëy na ci ay moom la njiit réew mi dëggal Sud Quotidien feelu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi 2024 yi direct news gis ne Amadou Ba mooy tànneef bu baax bi Walf Quotidien nañu waa Benno léegi ci ginnaaw Amadou Ba Amadou Ba ak Macky Sall toog di waxtaan photo bi mi ngi ci xët mu njëkku laa yéenekaay laas moom it bokk ci yéenekaay yi ñu xëy xamal ne Amadou Ba mooy ki président Macky Sall tànn ne candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi 2024 yi Mansour Faye maire bu saint na Dakar la si ne kay ne nañu ci conférence de presse bu mu doon def fa la xam leen ne Amadou Ba moom la président tànn ànd nañu ci ñoo ngi ci ginnaaw mooy suñu candidat ñeneen ñu ànd ci tànneef li ba wax ko ñoo ngi ci lii quotidien mu di Abdoulaye Seydou Sow mi ko jàppee choix démocratique ak directeur général bu ONAS di Mamadou Mamour Diallo mi rafetlu tànn gi ñu tànn Amadou Ba ni candidat bu Benno Bokk Yaakaar ndax jàpp na ne tànneef la lu tënku ci continuité ak ñu tànn leen te kenn tànnu leen di li nee nañu responsable APR ba ca Géejawaay di Lat Diop ngi leen di xelal ñu bañ fee nekk di guddal mbayum noor bañ fee nekk di siisoo ko fippu te ñëw jàpp ci candidat bi Macky Sall tànn Macky xàllal na ba yoon wi l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk bu nuppi ji lu xalimam topp tànki Amadou Ba ba di ñu xamal yenn ciy jaar-jaaram mi ngi ñuy waxit lii doon sansa moom Amadou Ba ngir mu mën a matal li ñu ko dénk ak yaakaar yu ñu am ci moom ak yi mu dina ko wolu ngir waxtaan ak moom suur soo mel ni ku naan ñu mu des nag léegi Aly Ngouille ndax moom Aly Ngouille bi Macky Sall jëlee jackpot bi jox ko Amadou Ba Aly Ngouille dafa fipp li mu njëkk a def mooy tekki ndombal tànk ministre agriculture bi mu yoroon delloo ko Macky Sall mi ko ko joxoon ba noppi di xamle nag ne jot na ci moom Aly Ngouille Ndiaye mu dem seeti leneen ñeneen ñu bëggoon doon candidat mu di Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Mame Diop ñoom teg nañu lépp fi suuf fas yéene ci ginnaaw candidat bi Macky Sall tànn ndax njiital caisse des dépôts et consignation di Mame Boye Diao dina def noonu source nañu wóoragul li ñu Kolda di Mame Boye Diao woote na ab conférence de presse suba ci talaata ji ci la ñuy xamee moom Mame Boye Diao ban tànk lay taxawee ñu taxaw ci xët mu njëkku Les waaye ci APR gi mu bokk bari na ñu mu ko bokkal ñu fa di ay kàngam yoo xam ne patt bi la may Amadou Ba Bili Ba mi jabari Amadou Ba Les Échos ne nañu guléet sañu gis ko keroog mu génn bay wax ci politique da doon rafetlu tànn gi ñu tànn boroom këram di Amadou Ba ni candidat bu Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar tir bi nañu jege na tasaaro te buy tas Amadou Ba mi Macky Sall bëgg a bàyyee coalition bi moo koy tas ndax Aly Ngouille Ndiaye ma ne woon ministre agriculture buub nay kalmaña ngaanam dem yoonam Mame Boye Diao mi ngi ci logique gu ubbi porox ndoll ngir ay négociation kii di Abdoulaye Daouda Diallo moom tribune nee nañu li nekk cim xelam moo di sos beneen parti politique bu muy tuddee APR authentique mi ngi ci waxtaan ak i ñoñam ñun nañu dem ci libération immigration clandestine Barça wala Barsàq ci la xëy ba dañu xamal juróom-ñeenti gaali looco yu ñu sauvé ci géejug Espagne gi Sénégal dañu déparé woon doon dem Espagne guddik samedi jàpp dimanche journal bi nee nañu ci la loolee xew ñi neewoon nañu juróom-ñett téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak ñett 783 personnes ci ñoom fukki jigéen ak juróom nga ca woon ak fukki mineur fait majeur ci l'observateur ubbil yéenekaay bi benn kankurang la ñu ay paaka ba mu faatu ca Tamba.